aywa tey Abdoulaye Cissé moo gàddu camérawam dem ba gox bu ñu naan sebi Sébikotane wax fa euh, lu doy waar lu fa am loolu nag euh, mu ngi aju ca CM ba nu fa tabax liñ ci euh, def ci ay koppar bari na ëpp na juróomi téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent waaye daanaka daal dafa mujjee neen ndaxte gune ya fa daan jànge dañ leen a mujjee sax nag jële ci bërëb ba yóbbu leen feneen ndax bâtiment boobee nga xam ne biñ ko fa tawee gul dara mu ngay gaaw a màbbu tax na nag ñu def ab taxaw seetlu ci édifice public yi maanaam euh, euh, bërëb yu mel noonu taax yi ñuy tabax yu ci mel ni ay daara ay stade ñëpp bokk ko euh, ba noppi itam ñuy ngi xaw a sàggan tuuti ba mu indi ay jafe-jafe ñu seetaan ko dellusiwaat Sébikotane nag mu ngi nekk ci euh, benn quartier la ci Sébikotane waaw CM bi moom mu ngi dépendre ci inspection de l'éducation et de la formation de jam Diamniadio IEF euh, Diamniadio IEF Diamniadio mu ngi dépendre ci l'inspection d'académie de Rufisque li fi xew moom sëñ Cissé vraiment mooy état bi état euh, euh, classe yi nekk fissuré ba nga xam ne boo nekkee ci biir di gis ci biti alors loolu moo tax ba vraiment euh, mu nar daanu ci kaw xale yi moo tax ba xale yi léegi fi mu ne mënatuñ fi jàngee. kilifa yi bi ñu gisee ne école bi fissure yi daal bëri na te wóorul ah ñoom ñu demandé ma mu tëj école bi. yëf yi ni mu dikkee vraiment ñun day jaaxal parce que depuis école bi 2016 dañ ko tabax 2018 ñu réceptionné ko quatre ans après mu commencé mel nii fissuré complètement donc à partir de 2020 daal la fissure yi commencé feeñ deux ans après kon nag loolu vraiment ñun dañu xamul ci liggéey bi ñu ko liggéey moo jaarul ci yoon wala lan moo tax jaarul ci yoon waaye daal vraiment bâtiment bu am quatre ans école bu am quatre ans vraiment mel nekk état bi ngeen ko gisee ñun jaaxal nañu lool. bi fissure yi njëkk a noonu la ñu sous nañu ñu génn ak maire de Sébikotane maire bi jàppale ñu ñu luye benn site moom mooy le premier site waaw donc boobu leen yore ak bi ñu AGETIP luyel léegi nag troisième yi ñoom comme ñoom dañuy def examen ñun ñoom lu leen di fixé ci benn site bi quatrième yi aussi il faut ñu fixé leen parce que ñoom dañuy préparé déwén brevet sixième cinquième nga xam ne seen programme presque terminé na boo ñoom on va utiliser système de rotation mooy xale yi ñuy gën a wax ay nomades bon kon ñoom ay benn weer moo leen dese benn weer ak genn wàll peut-être bon ñoom ñu terminer année bi. xool bu naqari trop trop vraiment parce que vraiment dañ leen a tasaare naa ne dañ leen a tasaare parce que ñii ñu ngi fii troisième yi quatrième yi ñu nga fële cinquième yi ainsi de suite fu moom daal fu ñu am ruq bu leen mën a dugal dugal nañ leen fa wut nañu fi ñaari site yoo xam ne yi fu ñu leen dugal la. boobu tam beneen problème la parce que euh, waa ji ngi ko yoreel ay mois de location. maire bi fi nekkoon jël ko en charge à raison de deux cent cinquante mille francs par il avait pu payer les trois mois malheureusement il n'est plus là bon il bon puisque mairie bi bi door a toog mënu woon fay ñun président APE euh, comité de pilotage bi ñu jël ko en charge bon di lijjanti bonne volonté yi ainsi de suite wala lu ñu am ñu dem ci mairie bi ne lii lañu am mairie bi complété ñu fay bailleur bi bon mooy site boobu nga xam ne mooy premier site bi. mais bi mujjee jël moom AGETIP moom moo koy fay. mais foofu ñun li ñuy wax foofu mooy ne. il peut pas y avoir deux poids deux mesures dans la mesure où école bi benn école la. Ah, parce que ñoom bu ñu bëggee ne site bële la ñuy engagé di ko fay mais premier site bi duñu ko duñu ko fay kooku ñun ça ñu jël ko. bon nañ deux mois léegi deux mois yi nga xam ne moo ci des pour école tëj mais kooku ñoom war nañ ko mën a jël en charge même bu école tëjee aussi am na bagage fa ne mais bagage xanaa duñ ko génnee sànni ko ci mbedd mi. kooku nag da di AGETIP moo war a ñëw gannaaw évacuer na école bi feneen fu xale yi nekk daal moom moo ko war a jël en charge. ñun loolu lañ nee nañu benn site la jël en charge ah, ñoom nee nañu benn site la ñuy jël en charge muy site bi ñu mujj a jël bi ñu évacuer xale yi. mais site bu njëkk bi nga xam ne bii mu ngi xale yi ca lañ nekkoon boobu nga xam ne mairie bu njëkk ba moo ko jëloon léegi comité bi continué di ko fay ñoom nee nañ du ñu jël boobu ñun nag vraiment loolu mën nañoo comprendre mën nañoo comprendre moo tax ñu bëgg ni ñu jëlee site bële te ay élèves ne fi site bii aussi ay eh, élèves Sébigar ne fi ne ñuy ñëw aussi fay ko kii peut le plus peut le moins. léegi nag ñun équipe pédagogique bi yóbbu nañ bagage yi euh, table banc yi ak bureau yi donc dès la reprise prochaine rek cours yi day continuer foofu. école bi vraiment ak matériel bi ci nekk gis nga ko gis nga chariot les chariots scientifiques les ordinateurs et tout ñu ngi fi mais mënatuñ ko utiliser parce que mënuloo ko mënuloo ko jëlee fi mënoo ko yóbbu feneen ci site yi li nga ko mën a def rek mooy jël ko garder ko denc ko loolu vraiment lu ñu metti la lu ñu metti la lu ñu sañoon suñuy doom di ko jariñoo naa di si déwén nag ñu ngi yaakaar ne autorité yi nañ jóg si jël ay mesures définitives durable durable yoo xam ne peut-être nañu utal site boo xam ne nañ fa mën a def suñu classe yëpp def si euh, service administratif yëpp en attendant en attendant nag ñuy construire benn école parce que loolu lañu loolu la ñu promettre mais bu nu amee benn site bu baax rek ñoom AGETIP ñoom leen intervenir pour construire. suñu sañoon tamit vraiment gannaaw école bi ci Sébikar la nekk. te am na ci zone yoo xam ne melul nit terrain bi fii mais zone yooyu bu ñu sañoon mairie bi nga xam ne moo ko war a mën a joxe mais joxe ko jox ko ñi AGETIP ñi nga xam ne ñoom ñoo chargé wu construction yi bu boobaa ñu construire leen foofu ñun nag pour ñu joxe ko kooku mairie moo ko mën a joxe. mairie nag bu fekkee mën na ko leen koo jox pour ñu tabaxul moo ñu gënal parce que jële fi CM bi buñ ko fi jëlee fan lañ ko yóbbu amuñu feneen. des images très tristes euh, donc euh, bâtiment bu ñu tabax 2018 une page de pub et puis ñu dalal euh, Abdoulaye Cissé mi demoon foofu